ardi la rajaxa bihim ngëm yàlla Seydina Abu Bakrin suñ ko peese woon ak ngëm yàlla ak mbindeefug yàlla gi yëpp ngëm yàlla ak Abu Bakrin dana lënk ngëm yàlla ak mbindeefug yàlla gi yëpp li waral loolu ragal yàlla gi la ragal yàlla mooy tomb bi gën a rëy gii jullit di uut ci kaw suuf suñ xoolee ragal yàlla euh, maqaamam ni mu toll danañ fekk li muy lii ragal yàlla di jur euh, jural doomu aadama kenn xamu ko ku dul yàlla góor yàlla yi ashaabu rasulillahi sahaaba yonent yi la ko jëlee ko ci ñoom ba ci taabiina yi kenn ku nekk ci ñoom soo gisee ñu lay tagg di tagg say jikko day fekk ragal yàlla jiitu na ci ndax jikko su ci ragal yàlla amu dara amu ci mhm. julli baax na mais du kàbbar di sëgg di siggi mais na la julli gi jox benn ragal yàlla goo xam ne day changer sa jikko pour nga mën a nekk ak eh, eh, adduna bi ndekete koor gi ak aj lépp nekkul mouvement bi waaye yàlla li mu bëgg ci yow mooy xol bi na baax jikko bi na baax su baaxee lépp baax gis nga waa ji nee ne yaram yi am na waaye ruux yi tamit am na yàlla ba mu sàkkee doomu aadama def ko sàkk di xëñ ci moom ñaar benn bi yaram bi la beneen bi ruuxu bi la bul toppatoo yaram bi ba fàtte ruuxu bi ndax liñ la sàkkee mooy ruuxu bi sàkkee wuñ la yaram bi ndax yaram bi day nëpp waaye ruuxu gi nag wa ruuxu kaana nushuuhu manzuuhu min zalika al mala'i aliyi al amjadi أوطيت جسمك خادما فخدمته ونسيت عهدك في الزمان الأول dañ la jox sa yaram pour sa yaram bi liggéeyal la ngir sa ruux bi jëm kanam sell ci yàlla waaye nga fàtte ruux bi di liggéeyal yaram bi yaa xaadimal jismi kam tashqa bi xidmatihi atatlubu ribha mimma fihi xusraanu fanhad ila ruuhi wastakmil fadailaha fa anta bi ruuhi la bil jismi insaan waykat bi nee na yow miy liggéeyal sa yaram di sonn fàttalikul na yow du yaram kese yaram nga ak ruuhu ruuxu gi fexeel mu baax ruuxu su baaxee xol bi baax nafsu bi baax nga daal di yéwén mooy asxaab rasulillahi maa ngi la ci jox benn misaal ci abu jaanata ñi nga xam ne ñoom yonent bi leen yar ñu gis jikko yonent bi ak ragalu yàlla gi nekk ci yonent yàlla muhammad yonent bi wàlli leen ci mbooleem catégorie ci mbooleem maanaam euh, maqaama yu kawe yi ba wàlli leen ci ragal yàlla gi nga xam ne moom moo jiitu ci maqaama yu kawe yi abu dujaanata dafa dëkkoon ak benn yahud seen kër ñoo sës yahud bi am benn tàndarma boo xam ne tàndarma baa ngi ci këru yahud ga waaye bànqaas yaa ngi wadd ji ci kërug abu dujaanata sayidna abu dujaanata saa bu julli jee fajar su nekkee foofu di jàmm yàlla su ñëwaatee ci fajar gi day fekk man a bànqaasu tàndarma ak yahud gi ñoo ngi waddal ay tàndarma ci biir këram xaleem mi suñu yeewoo dañuy dem di for ci tàndarma yi di lekk te mu xam ne xale yi la lekk du alalam daganul ci moom ragal yàlla gi toll na ci moom ba su daan julli ak yonent yàlla muhammad fajar su yonent bi sëlmalee rek du fa xaar dara day daw dajale tàndarma ya wadd foofu yëpp ci këram mu sànni ko ginnaaw ginnaaw këram mooy mu dali ca kër yahud benn bés yonent yàlla muhammad saa salaam seetlu na ne abu du janata sans buñ jullee rek day gaaw yeeweeku du def sax ay saalihaat baaqiya yonent yàlla muhammad ne ko <coughs> abu du jaana amalaka xaajatun inda allah xanaa amoo soxla ci yàlla saa bu ñu nee salaamaaleykum rek nga ne përét dem Abu Dujaanata wallahi ne ko am naa soxla ci yàlla de li tax may dem dafa am benn tàndarma boo xam ne yahuda ko moom moo nga ca këram waaye bànqaas yaa ngi daanu ji sama kër ngelaw li su ëppee bànqaas yi tàndarma yi day wadd sama biir kër su ma fi yàgg tuuti sama xale yi di yeew rek dañuy jël tàndarma yi lekk ko te daganul ci man wallahi yow yontu yàlla Muhammad yow mi yàlla yónni benn bés luqati naa benn tàndarma ci sama gémmeñu doom boobu moo ngi yëy tàndarma bi ma luqati ko sànniwaat ko ci kër yahud bi xale bi di jooy ma ne ko ama tastahi antaraani amaamallahi saariqan mu hmm. ne xanaa rusoo yow sama doom nga gis ma bési pencum yàlla ma taxaw kanamug yàlla ñu may atte atte sàcc ndeysaan yonentu yàlla muhammad bam ba mu waxee loolu yonent bi Seydina Abubakar dégg wax ji hmm. dem ca yahud ba ne ko damaa bëgg nga jaay ma sa tàndarma gi mu jaay ko tàndarma gi mu jël may tàndarma bi abu dujanata ngir ragal yàlla googu mu gis ci Abu Dujaanata Seydina Abu Bakrin yàgg naa def lu baax mhm. yahud gi tamit ba mu déggee ne Abu Bakrin daa jël tàndarma bi ngir histoire googa Abu Dujaanata wax yonti yàlla Muhammad moom tamit mu wammat njabootam yëpp yóbbu leen ba ci yonti yàlla Muhammad saa sallam mu ne gëm naa ne yow yàlla la yónni ndax ñii nga defar nii seen ragal yàlla yegg ci kaadurug tàndarma gu wadd seen kër ñu koy jël ñu koy sànniwaat ci beneen kër gi di ko luqati tamit seen gémmiñu doom ñooñu xam nañ liñ nekk xam naa ne liñ nekk dëgg la te yow mhm. yaay seen jiit xam naa ne yàlla la yoon ni mu tuub moom ak njabootam yëpp mhm. résultat wu xam yàlla dafa rëy lool lool lool lool ba ke Seydina Xasanul Basri dañuy mhm. yàlla benn xar réer ci jamonoom soo xoolee rek da ngay fekk ragal yàlla amatul suñ jamono gi néew na ñi ko am tuuti nañ lool ndax benn xar réer ci jamono Xasanul Basri mu toog laaj ñaata at lay xar di dund ñu nettali ko ko mu toog at yu toll noonu lekkul yàpp xar ngir daje ragal lekk yàpp xar daje xar bañ sàccoon lii ndekete mm-hmm. mooy dëgg-dëgg ragal yàlla ñii ñoo jara roy ñii ñoo jara mm-hmm. gis naa benn góor yàlla goo xam ne xabaar yi la tudd ah, amoon na amoon amoon fasam wum jaayoon ndekete kam ko jaay fecc ko te buur bi la mm-hmm. Seydi Hasan al Qabbaari kam jaay fas bi Mouhamad Mansour al Qabbaari kam jaay fasam bi ndekete feccu katu buurug jamono googu la fas wa nekk foofu nanguwul lekk ba waaj a ñëw ne ko eh, yow de sax fas wi ba nga ko jaayee ba léegi nanguwul lekk fam nekk nanguwul naan mu laaj leen kan moo jënd eh, fas wi ñu ne ko fecckatu buur bi la mu ne ñun suñ fas du lekk lu araam delloo leen ma sama fas ma delloo ko xaalisam ñu indilaat ko fas bi fas bi commencé di lekk ngir lan nit ki ragal yàlla ba wàll ragal yàlla ci fasam gañ jaay feccikatu buur ba mu dem fa bañ a lekk lu araam moom fas bi mhm. ngir roy jikko ka nga xam ne dafa ragaloon yàlla nga xam ne nekkati nit ñi dañoo wuute suñ jamono gii nii de nit dana rey nit ci 2000 francs bakkan mhm. nga rey ko fekk 2000 francs moo tax balaxa zamaanu min a suubati annana di ala nafsin bi alfay dirhami 2000 mhm. balaga zamanu min asuubati jamono gi yegg na ci jafete jafe-jafe ànd naa naqdi ala nafsin ñu rey bakkan bi alfay dirham bi ci 2000 francs nga rey ko rey ci bakkanu doomu aadama mi nga xam ne yonent yàlla Muhammad saa sallam nee ne bak doomu aadama rëy na tabaxu yàlla la al insaanu binyatu rabbi la an allahu man hadama mhm. doomu aadama mooy tabaxuk yàlla yàlla rëbb na ki nga xam ne moom mooy màbbal tabaxu yàlla doomu aadama ni màggee nit di ko rey fekk lan li tax mu rey ko mooy Euh, deux mille francs ñu gis ndekete loolu ñàkk ragal yàlla la mhm. ñoom euh, Abu Hanifata euh, góor yàlla la da daan jaay bitig daan liggéey di jàngale am na ku mu bàyyi ci bitig bi benn bës moo ngi génn mu ne ko nag marchandise bi daa am ella bii nii dafa am défaut soo koy jaay nit nettali ko ne marchandise bi am na défaut mu génn ndekete am na kuy ñëw di jënd marchandise bi waa ji fàtte na ko wax sax ne am na défaut mu jaay ko ko ba Abu Hanifata yegsee mu ne ko ana marchandise bi fi nekkoon mu ne ko jaay naa ko mu ne ah mbaar wax nga waa ji li nekk ci marchandise bi mu ne ko déedéet dama ko fàtte Abu Hanifa te génn dabi waa ji ne ko sëñ bi nga baal ma de sama xale ba ma bàyyi woon ca bitig ba waxoon naa ko kuy ñëw di jënd na la wax na ko wax ne marchandise bi am na lu ci am na lu ci ñaaw am na maanaa défaut mu ne man dee waxuma ko mu ne ko kon nag kaa ñu delloo la sa xaalis na Abu Hanifa ànd ak moom delloo ko xaalisam eh, jëlaat marchandise bi waa ji ne ko yëngal bopp bi ne ko yàlla xam na ne xaalis ga ma ko jox yépp tamit dara baaxu ci man tamit caay-caay moo ma dugaloon ci loolu nga gis ndekete ragal yàlla sax daf lay daf lay protéger ba doo daanu ci li nga xam ne pertement la loolu mooy si siima jikkoog góor yàlla yu njëkk yi sayidna ali ibn abi taalibin bañ ko laajee luy ragal yàlla ne al xawfu min al jalili wal amalu bi tanzili wal rida bil qalili wal istidaad li yowmi rahil ragal yàlla dëgg موي الخوف من الجليل دا غاي راغال يالا بن والعمل بالتنزيل غا جافي القران واي وريدا بالقليل توتي غلا يالا ورسغل غا دويلو تي مو بان لا يوبو با غاي اغريس اك دوم ادم ولا غاي ساليت تي غيس غا نيو علال نيت ني نيوكو بان في waye ngeneel la bis mm-hmm. pencum yalla mm-hmm. ndax xolal sayyidna ali ibn abi talib neena daliluka an خير من khayrun min al ghina wa an qalil لقاؤك مخلوقا اسى الله بالغنى ولم ترى مخلوقا اسى الله بالفقر من نياك صح علال مو غن ام علال لول ني كاي خلات موي ني خلات الك بس بنتم يالا ديرم بو نيك دا نلا لاج فان لا جيلي كون اك فان لا دوغ سيدنا علي نينا دليلك ساتكتال ان الفقر خير من الغنى نياك علال مو غن علال جبري سوكو واخي جامانو جي تي كين دوكو ديغ دا كين كو نيك ياغي ديف تو بور ام علال جبري مي نا خمال دو جيغي سيرات lu dul ñu laaj la dërëm bu nekk fan nga ko jëlee ak fan nga ko dugal xoolal ay milliards milliards ni mu bëree suñ la naree laaj dërëm bu nekk fan nga ko jëlee ak fan nga ko dugal fekk yaa ngi taxaw ci buntu siraat war a jéggi yaakaar naa war nga fa yàgg da nga fa yàgg lool hmm. ba tax na yonent yàlla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam ne Suleymaan yonenti la doomu Daawuda nit ñi dinañ dugg ajana ñeen fukki at Suleymaan di doog dugg ajana ndax nguur gi ko yàlla mayoon te mayu ko kenn waxoon habli mulkan laa yambagi li ahadin min baadi hmm. Seydina Ali nee ne li lay tegtal ne ñàkk alal sax moo gën am alal ji bëri ca yàlla la wax anna alfaqra xayrun min alghina wa anna qalila almaali xayrun min almusri mu ne liqaawuka maxluqan asallaha bilghina léeg-léeg nga daje ku yàlla sàkk fekke moo ngi mooyee yàlla alal gi ko yàlla mayoon yàlla may la alal defoo ko fan ko war a def nga ci mooyee yàlla waaye walam tara maxluqan asallaha bilfaqri mu ne mosoo gis nit di mooyee yàlla alal goo xam ne amu ko alal gi nga amul moom yegg seegul ci yow googu moom mën a goo ko moye yàlla sayyidna rasulullah sallallahu alayhi moo gën ci li yàlla sàkk waaye daan na toog ay weer këram duñ togg añ aïchatu nee na dañ daan nañ dund al aswadaani mooy ñaari ñuul yi mooy ndox ak tàndarma rek lañ daan lekk te moo gën ci li yàlla sàkk ci la ñu xamee ne àdduna ndeke daa jiital geen bàyyi bopp su àdduna maandu woon ku toll ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam du fanaan di xiif fekke mbaam ngi fanaan suur ci àdduna rek ngay gis boroom xam a ngi fanaan ci suuf di béréngu كوري رانجي فنان تي كو ماتلا نولي اك نوي اك تي تي بالي ادونا دافا جيتال لي غينا ام سولو مانا دافا موديل لي غينا ام سولو جيتال لي غينا نياك سولو نون لا ادونا ديمي خولال خورم ريك نيم امي فايده تي ليك وايي دنجكو دنج سات بولي تي ديباس وايي سو كندو اني يونت يالله محمد مي ген تي لي سيدنا عمر بن الخطاب نيونا فيكو مو تي باسانغ واو باسانغ بي ماركي تي جوي يونت بي نكو جوي مون خولال ريك ادونا ييس ñoom Kisra buuru bu buur yoo yaa ngi ci seen matlaayu nooyi yow mi yàlla yónni yaa gën ci lu yàlla sàkk te yaa ngi tëdd ci basang yu woowu yonent bi ne ko maali wali dunia illa ka aabiri sabilin istazalla taxta shajaratin su martahal man ak adduna nag melu ñenn lu dul ku doon tukki jaar ci ronu garab doon noppaliku ba kër bi sedde mu continué man noonu laa mel ak adduna moo tax benn woykat ne ne atabtu ala dunia li rifati jahilin wa xafdin li zi ilmin fa qaalat xuzi l banu banul jahli abnaa'i li zaaka rafaatuhum wa ahlu tuqaa abnaau darrati al uxra mu ne maa yedd àdduna lu tax nga yëkkati ku réer di suufeel ku xam lu tax nga yëkkati ku ñeme yàlla di suufeel ku ragal yàlla àdduna ne ma teeyal defal ndànk hmm. ndax ña ragal yàlla te am xam-xam ñoo ñooy doomu àllaaxira xaritu yàlla yi ñi ñeme yàlla te réer ñoom ñooy sama doom man àdduna te nit nag say doom ngay yëkkati ci sa kaw doomu gu wujj àllaaxira sama wujj la ñi ragal yàlla ak ñi am xam-xam doomi àllaaxira lañ te àllaaxira sama wujj ñi ñeme yàlla te réer lool samay doom lañ samay doom nag laa war a yëkkati ci kaw sama doomu wujj moo tax mu ne atabtu ala dunia li rifati jahilin wa xafdin li zi ilmin fa qaalat xuzil uzra banul jahli abnaa'i li zaaka rafaatuhum ñooñu réeraange ñoo ñooy sama doom li zaaka rafaatuhum moo tax ma yëkkati leen wa ahlu tuqaa abnaau darrati al uxra sayidi hasan sayidi ibrahim ibnu adham kenn ci góor yàlla yi nga xam ne ñiy gestu taarixu góor yàlla yi ko ci laaj xam na ko ndax moom lañ daan tuddee cheikhu zahidin xëy na benn bés fase àdduna ndax lan dafa dégg benn kàddu aay ak alxuraan booba moo ngeeg baayam dafa génn àdduna moom ma war a nekk buur macha allah dara desul lu dul ñu fal ko